mooy la transparence nga xamante ne ça fait partie de la charte de gouvernance de du gouvernement entrant définie par le président Diomaye fay loolu moom buñ ko defee fexe ba sénégalais yi ñi doon dem toog ci dëkk bi gis ci seen bopp moi je pense que nii euh, ce sera que euh, bénéfique euh, pour no compatriotes. voilà. waaw man loolu laa mm-hmm. en tout cas Mansour Sy Cissé jàngat bi am na solo surtout profil yi ma dégagé yu bëri yoo mm-hmm. xamante ni nii ah, jot nañu ñu ñu teg ci yoxo alors mm-hmm. Cheikh Ousmane un de vingt cinq ministre sans compter secrétaire d'État yi ñu wax ak itam waaw euh, au minimum trente ans maximum donc euh, ban jàngat nga ci def li ci gën a am solo mooy les ministères de souveraineté amul benn politique bu ñu ko jox. voilà c'est important. à part soxna Khady Fall. Yacine Fall loolu Yacine Fall. xel mën na ko naw et danaa ci digg. xam nga boo jëlee intérieur nga jox ko comme ni ko Mansour waxee. waaw le général Jean Baptiste. ñu ko xam ñu ko ñu ko kii quoi. mu nekkoon patron wu gendarmerie. ku wax gendarmerie wax sécurité wax renseignement. Mmh. soo Ousmane defaral ma micro bi tuuti mu gën a jóg. te sécurité intérieure ñaar yooyu rek. sécurité yi ci gën a am solo ñaar yooyu la mooy renseignement ak sécurité mu maîtriser ko bu baax mu nekk domaine am xam na maanaam nu mu tudd appareil bi ni muy fonctionner xam na yan poste moo nekk des postes clés yoo xam ni il te faut des gens très fidèles au président de la république xam na fan la ñu war a changer xam na fan la ñu war a mettre l'accent à de ce moment comme dafay teel a am une mainmise sur la sécurité intérieure. Mhm. te lu essentiel la fi ñu jëm. Sénégal tension ak menaces yi kay gerte nga am opposition bu bees boo xam pouvoir lañ jóge attention fii di nit ñoo nekk ci yenn instance yàlla may leen yenn moyens boo ñagul sa sécurité intérieure bu baax doo gouverner ci instabilité ngay nekk. donc da nga soxla koo xam ne du ñëw di tâtonner di xool fan la yëf yi ne da soxla ku miin maillage bi ba pare nga xam day ñëw rek ne ko tëj téye koog loolu muy le général euh, Jean Baptiste Tine donc gis nga ni sécurité intérieure jox nga ko une personne apolitique mais miin tamit sécurité ku miin renseignement muy benn bu jugee foofu nga ñëw forces armées nga ñëw forces armées nga jox ko l'ancien général Diop mu nekk général boo xam personnalité très def lu bëri bëri bëri bëri ci fonctionnement troupe bi seen condition yu bëri yi ngay gis des réformes moom moo ko def donc nit la koo xam ni xam na troupe xam na mentalité wu soldaar yi dafay nekk tampon entre nguur gu bees gi ak les généraux ba nga xam ni xëy na yenn affaires yi du am parce un soldat dafa am façon bu muy fonctionner dafa am façon bu muy gisee les choses donc boo jëlee benn civil boo xam ni maîtriser wul la façon dont fonctionnent les soldats réero dafay am des fois muy benn nga jël justice jox ko un ancien magistrat koo xam ni wax na la ko moom du obéir à des commandes politiques la a su dire non au régime de Wade il a su dire au régime de Macky Sall il dira non aussi à ce régime te ñetti yooyu dafa am solo parce que ñett yooyu bokk na ci li gën a jur jafe-jafe wala ralbul yi sénégalais yi di am wala déception ci nguur yi fi weesu nga indi affaire étrangère moom rek mooy ministère de souveraineté boo dénk une personnalité politique et c'est compréhensible xamul tax ministre affaires étrangères mooy porte-parole lu président wala pouvoir en place au niveau international kooku su maîtriser wul la politique euh, nu mu tudd politique bi nga xam ne moom la nguur gi indi di ko dérouler discours am ak politique gu chef de l'État dafay am décalage. Mhm. te décalage warul am ci ñaari moo tax souvent da ngay gis ministre affaires ministre affaires étrangères boo xam ni discours am wala politique am wala comportement am dafay wuteeg discours bi le président en place wala le le pouvoir en place di tenir. Mhm. donc moom miin na projet bi xam na. rupture yi fu bëgg indi. xam na en terme de souveraineté gis-gisu Pastef au niveau international. donc nit ku matee taxawaay boobu la. yeneen postes yi da gis ni dañ ko jox des personnes qualifiées. yu xam seen domaine def ci des résultat produire ci ay livres. surtout am na ku ma wax sànq na ma gouvernement bees bi annoté nañ ci neuf per neuf ministres yoo xam ne ku ci nekk secteur bi ñu la bind. secteur bin la jox fekk na nga bind ci mhm. benn ouvrage xalaat nga ci gëstu ci wax <laughs> <laughs> donc ñëwuñ jox donc ñëwuñu <laughs> jox ay nit yuy tâtonner ne leen dem leen liggéey loolu feeñ na ci mais dafa am leneen luy liiraat ci biir euh, gouvernement bi mooy les politiques indiwuñ leen ci post yi nga xam ni il seront trop clivants fexewuñ tamit teg leen fi nga xam ni maanaam dañuy yor kàddu de trop loolu dafa am solo mooy dem leen ngeen liggéey indiwuñ leen pour temps politique boo xoolee ñi ci gën a am verbe facile nekkuñ fu ñuy waxee lu bari loolu dafa am solo. Hmm. El Malick gis nga fi ko yóbbu. Abdourahmane Diouf gis nga fu ñu ko yóbbu. pourtant El Malick sax teewul moom mooy. El Malick voilà gis nga Sare. El mu Sare wax li muy wax la farata jàll ci leen. mais tey mënoon nga indi tey keneen koo xam ne dafa am verbe facile neex làmmiñ indi ko mu nekk porte parole du gouvernement muy wax te doo comprendre dara comme ni ko président waxee woon. Euh, nu mu tudd moom ki yore woon kàddu bi amoon ay kii na ko na ko da ngay <laughs> wax kenn du xam li wax. c'est lii mooy langue de bois. langue de bois da ngay xam ne nga <laughs> donc gis nga ni Sare c'est un mais très précis ñàkk caaxaan daleex lim leex jàll ci jàll dem yoonam donc loolu la ñu soxla comme porte-parole go soxlawuñu ko am verbe facile neex làmmiñ Yacine li génn bëriwul non non waaw sara daleex lim ah. la diplomatie jàll ci leneen même ministre bi may tooñ léegi Alioune Sall tamit euh, bon man bokk naa ñi ko xam ñoo ko gën a ah. sonal ci ay kii mais li muy génn bëriwul waaw donc indi nañ des hommes qualifiés dénk leen liñ leen war a dénk léegi nag li ma gën a neex ci yëf mooy dafa indi ay rupture ci loo xam ni man ma jàpp ni frein la woon ci suñu développement mooy seddale ay quotas régionaux. du dara. wala loolu du tous. naa dëkk bi. fan yii paase la fi am. amul ministre comme noor bi amul mais da ah, def dul tous gis bu ko gouvernement bi nangu mukk ñu complexe leen wala téye leen lool loolu du dara. Hmm. musuñu wax ni Sénégal bu ñuy tapp ay ministre dañ koy séddoo ci région en fonction région wala ethnie wala religion wala ethnie mooy waaso waaso laa bëggoon buñ ñu fontoo xamal lan lañ soxla hmm. des personnes qualifiées compétence daal rek compétence mën la ñuy def jël région yëpp fu nekk nga séddale fa ab ministre te kenn compétent wu benn région jël ministère yëpp te ñëpp compétence. parce que man am naa fi question boo xam sax kii moom nee na Mansour Sy la bëgg mu tontu ko. ñun rey na ma ndax yow loolu bëgg naa nga wax ci. mooy na mooy ci jigéen ñi nga xam te ni ñu ngi jug naan. gouvernement bëriwul jigéen parité dañ ko woote. c'est pas un gouvernement de man ki naan c'est pas un gouvernement de mannequinat même si la waa attends rek waaw ah, waaw allez-y waaw waaw. ngeen moo tax boole naa xam nga xam nga ñun. Euh, dëgg la la parité c'est une loi instituée yaa ngi dégg mais ñoom fi ñu bëgg a déplacer débat bi du foofu la ko war a déplacer parce que je peux dire que ni loolu accessoire la mais du moment que j'invoque la loi on va me dire que non dañ ko war a appliquer yaa ngi dégg mais est-ce que tey jii rigueur bi ñu soxla rigueur bi ñu soxla tey jii est-ce que mën nañ ko am en même temps qui répond au profil c'est une question ba pare y a des yoo xamante ne bii sa ne se discute pas sur la place publique est-ce qu'on est d'accord parce que parfois parité bi ñu naan wax dafa daan am benn aspect à la fois politique pour ne pas dire politicien est-ce que yaa ngi dégg bu baax ma la wax je pense que nii c'est un premier gouvernement c'est un premier gouvernement ku la wax ni dans six mois neuf mois un an ñu changer defaat de l'entrisme. Ah, en tout bu ñuy changé yàlla na nekk fii trois ans quatre ans. non man na fekk lépp na na ñu jox daal yàlla na dox. non man yàlla na dox euh, ci prérogative bu président dañu wax ne le président de la république nomme aux emplois civils et militaires point. Hmm. xoola point bu ko neexee tappi góor kese. Hmm. ku ci mun dara décret bi bu ko neexee tappi jigéen kese ku ci mun dara décret bi moom moo appréciation gis nga.